Bienvenue sur Salam Vision. ñëpp jóg. jërëjëf merci Maulana merci beaucoup la population de la ak kii boo ko gën ba ñu la amee ba tey ba tey bi jaaxle yaa gën ci ñun Ibulaay yaa ngi ci financement bee Ibulaay yaa ngi ci dimbali jigéen ñi Ibulaay yaa ngi joxe emploi kon yow war ngeen ne su may wax ci yow damay xel. tomorrow, life tomorrow, dwelling positive life tomorrow. maire des maires Abdoulaye Thimo mi nga xam ni ndamoo soxla si rek moo ko jox kon nag sama gars yi dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax sama xarit Baye ñëw na aca dugal dugal gars yi ñu la aca ah, naa Baye Baye dañu ñëwee tuuti parce que le grand maire a honoré la plateforme Cap sur la Banlieue. wax dëgg yàlla. dafa marqué votre présence monsieur le maire. jërëjëf. parce que ñu def développement bi jàppal ku musul jàkkaarloo président boo jàkkaarloo Abdoulaye Diouf boo jàppale jàppale loolu. dafa leer nañ tàcc leen parce que c' est la porte d' entrée de Pikine. dafa leer. munoo dugg Pikine di jëfal président di wax loo xam président te jaaroo jàppale ci ko. la seule et président de Pikine monsieur le grand maire vous êtes wax jigéen ñi bu leen xëy benn juróom takk leen seen sër tur ak sant di ko di ko teg suñu loxo monsieur le maire le king de le département de Dakar ma bëgg ngeen tàccuwaatal ñu ko bu baax a baax. soo gisee ma sàkk ma sàkk tàcc yi mooy. di leen def solidaire boo xam ne ñu travail sans bruit avec rapidité et efficacité boolewul dara ak wax monsieur Djibo bi nga xamee ba léegi ni mu mel la mel te li ma gën a frappé ci moom mooy dëggu. lum dul defal nit du la wax te loolu yaakaar naa ni bokk na ci qualité yu fonk lool ci doomu aadama monsieur le maire jërëjëf monsieur le maire suñu coordinateur su may wax ci moom du ma fi jóge koor bi fi may njëkkee rek mooy ñu nekk ci biti ñoo ëpp ñu nekk ci saal taatu garabu buntu bii ba ma fa génnee sama yaram dafa daw mag ñaa ngi fa lal ay basan toog Ibrahima ngi leen di masaw bu baax a baax di leen seet di leen jox seen wàccuwaay ak seen tàggatal temps bi nag daf ñoo xoj daanaka li ñu waroon wax yëpp madame la maire Faye Dame wax na ko ma wàccee foofu samay kàddu wasalaam. jërëjëf jërëjëf. waa jigéen ñi Abu Abu Jaay ñëw nañ de jóg nañu de jigéen ñi Abu Jaay jóg nañu ay ana Sala Thiam bisimilah. salaamaaleykum waa saal bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu dégloo s'il vous plaît Souadou maa ngi lay nuyu. maa ngi jiital ci nuyu le grand maire Abdoulaye Timbo le king de la région de Dakar. dama bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax tàccu leen ma la maire Abdoulaye Timbo mooy kilifa gi te moo waral jotaay bi su ma waxee loolu xam naa li tax ma wax ko gannaaw ci loolu maa ngi nuyu doomam di nuyu jarbaatam di nuyu sama coordinateur di nuyu monsieur Iboulaye Ngom le jeune dama bëgg coordinateur jógal le grand maire Iboulaye Ngom suñu fierté la fii ci département de Pikine waxuma nag cap sur waaye kii dafay coordinateur ndaw département de Pikine man amul ma waxee loolu ragaluma xam naa li tax ma wax ko gannaaw ba ma gëstoo sama càmmiñ gis Bangoura gëstu sama ndeyjoor gis Abdoulaye Yakin maanaam ñu naan rouge ak blanc fii ci département de Pikine la grand maire ki réussir dajale leen mooy le coordinateur Iboulaye Ngom kon ça veut que ni kii dafay leaderu département de Pikine dafay coordinateur ndaw ñi dama bëgg ngeen tàcc ko Ibou ñu lay sant ñu ngi lay gërëm gis nañ sa taxawaay ak sa engagement ñu ngi nuyu say jigéen. jigéen di nuyu Bigué bu ma mbay ñaa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax borom financement yi di nuyu la grande dame Aljana Aljana mooy borom Ndakaaru di nuyu suñu mama di sa tante di sa yaay mooy ajaratu Mbare Mbodj di doomu Kabiru Mbodj kii toog daf ma jël maaj Ibulaay waaw Marème Mbodj ñu ngi lay nuyu di la gis nañ mobilisation bi kiy toog fii ki def fa fi mën nañ ko xoolee jëmm Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul parce que li tax ma wax mooy Serigne Abou bi Serigne Fallou man Abou dafi sëñ Baara man Abou ak coordinateur daf ñu yóbbu ba foofu mu ñaanal ñi kon ajaratu Mbareem ñu ngi lay nuyu Ibu Laay nee nañ nag pecc riir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya mënuma ñëw fii wax ba jeex te tudduma mouvement Ziadé bu jidda caaray kaw tey bu ñu amee taxawaay am cër Mbay Karim ak Souleymane Daaf tey da ngeen may jéggal l'exil parce que jidda caaray kaw a aye te Ibulaay Ngom ñi nekk ci da caaray kaw di ànd ak ñoom yàlla def na man maa ngi seen coordinateur maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp les grandes dames maa ngi leen di nuyu leen ziar gis nañ seen taxawaay su ma ci limee coordinatrice Fayel Daaf mooy yóbbaale na ñëpp géew ginnaaw loolu di nuyu responsable ci da caaray kaw yi ku ci mel ne xawaat yi mayram Diallo Kumba Diop séeréeru Macky di wax na ne ñëpp teewal nañ di nuyu sama coordinateur Abou Tall mooy coordinateur COSER bu Djida Thiaroye Kaw waaye fi may tëjee mbokk yi mooy ñëpp xam nañ la grand maire a toog doomam Ibulaay ngoom toog rakkam magu Ibulaay ngoom waroon a toog fii mooy le grand maire Mamadou Gueye ñëpp xam nañ ne dafa voyage te man ma bokk ci cabinem Ibulaay Ngom maire Mamadou Gueye man maa ko fi teewal sa mag la sa xarit la nee na bu dul woon voyage bi mu nekk yàlla xam na ne fii la grand-mère toog bu la féetee ndeyjoor moom moo lay féete càmmiñ parce que xam na ne li nga mel ci moom xam na seen diggante yéen ñaar te xam na li nga ko liggéeyal ak ba mu toll fi mu toll tey loolu lépp buñ ko tënkee mooy cant gi ak ngërëm gi dañ koy delloo le grand-maire monsieur Abdoulaye Timbo ci moom lañ koy tëje ngeen sant ko gërëm ko tàccul ñu ko tàccul leen la grand mère bu baax a baax merci jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waa Pikine asalaamaaleykum waa Pikine maaleykum salaam waa Caaro Jidda maa leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo nag sama nijaay muy monsieur le maire Ablaye Timbo maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay nuyu parce que dama yaroo say tànk def dekkal ngor ba léegi dañoo yaroo say tànk ci wetu président Macky Sall ñu jógee ñëw Dakar nag jàng ci bokk ci mouvement élèves républicain bokk ci Codere national bokk CCR kon bu ñëwee fii Ibou Laye nga invité ñu en tant présidente de la plateforme citoyenneté cellulaire avec Macky Sall dañu am fierté amaat engagement nekk ak yow monsieur le coordinateur ñoo ngi ñëw fii pikin ànd ak suñu délégation waa Wokam Médina Patte d'Oie ak toute la région de Dakar monsieur le maire monsieur le maire maa lay présenter samay xarit kenn ku ne coordinatrice bi moo ñëw gunge ma ñu gunge suñu coordinateur muy Iboulaye di sama frère monsieur le maire dama lay wax ne am nga zone bu dynamique am nga zone bu am fulla am nga zone boo xam ne dafa am ngor bul kenn dugg sa diggante ak monsieur le coordinateur Iboulaye Ngom ñun ay séeréer lañ benn yoon la ñuy jàpp duñu jopp ñaari yoon te dañoo am di jaay bu tudd président Macky Sall ñun dañ koo bëgg ba duñ ko woy le président Macky Sall dañ koy woy papa peut-être yow da ma gëj a dégg wala nga gëj ma gis waaye yow yaa ma yar yaa ma yar ci APR waaye dafa am loo xam ne mënumaa ñëw Pikine duma ko wax monsieur le ministre ma mbay Niang ku ko xam-xam ne président Macky Sall mooy Mame Mbaye Niang monsieur le monsieur le dama lay wax ne que Mame Mbaye moo teg benn plateforme bu ñuy wax ne que euh, citoyenneté solidaire avec Macky Sall teg ci coordination mi muy man ma ànd ci ay jana mu nekk ministère de l' intérieur di liggéey liggéey bu rafet ak Amady Dieng. yàlla dafa def nag Mame Mbaye daf ñoo nampatal ci wax fula ak dox fay la ñu gis ko ci Ibulaay Ngom moo tax ñu ñëw ndokkale ko ci jour bi muy def muy lancement vente des cartes di président Macky Sall ñu koy wax ne ñun duñ des ginnaaw. ndax nag yàlla def na ba muy teral daf ñoo teral ñun xaaruñ ci moom dara xam na la ñuy xaar ci moom diggante doom ak yaay ku juum mu jubanti ba ñu teg suñu mouvement Mame Mbaye yëguñu kii rek moo ñu yëg ci commune bi ndax xam nañ du yàq du tas diggante du féewale njabootu Macky Sall moo tax tey bu ma taxawee fii dama dul dégg olof nag séeréer laa waaye ñun dañuy mëne ci politique ci à ñu gis ko ci moom ci lu yàgg nag mu koy doxal ci financement des femmes recrutement des jeunes ku mu gis waxal ko musumaa dégg soxlaam musumaa dégg soxla ibulaay moo tax ma ñëw tey jëmmal ko jëmmal ko nag ci xol jëmmal ko ci fulla jëmmal ko ci fayda ñun dafa ne si Skirring banlieue mais ñun ñun jigéenu Mambay ñu ne dañoo ne Cap Skirring Dakar dañuy roy si ibulaayu yi ndax fa ñu fa ñuy doon jàngee doñoo jàngee foofu président Macky Sall defar ñu lépp dañ koy delloo njukkal jaare ko ci le ministre Mame Mbaye ñaa ndax du ñu def lenn lu dul Mame Mbaye Niang ñun bu desoon kenn rek si Macky Sall Mame Mbaye lay lool ñun ñu nekk ay jigéenam yow loolu war ngaa xam ne Sénégal ba mu daj bii nga saa demul dikkul waaye kii bu wootee damay ñëw jigéen ñi nag man maa leen pro du ma promettre mais tey jii c'est la première fois may dem si benn événement ne dina def lii Ibulaay say jigéen damaa dégg ñu ne da leen di financer waaye ñun suñu financement day ñëw si banlieue bi jàppale la. Ibulaay ñun dinañ jël suñu tànk commune bu ne si Dakar. ak Sénégal fépp même Ziguinchor ñun dañ fay dem ndax dañoo am ay cousines yoo xam ne ajana mi raison naturelle am mooy Casamance am na fa ay nit yu bëri yu baax ñu dem fa ndax kenn moomul Sénégal ñun président Macky Sall mooy le président de tous les Sénégalais te yàlla moom la def mu nekk ci boppum réew mi kon dañ koy gunge ci fit ak ci fula ak fayda say jigéen ñi incha allah ni nga leen regrouper en calebasse damaa bëgg nga regrouper leen en groupement de dix incha allahu rabi ku pare ma dox ak yow ak ajana ñëw financer leen ci financement mambay Mbaye mu dig sénégalais yi te di ko def ñëpp gis ko nag ci politique waaye ci politique ci jàmm ak salaam moo na ñu xaw a jël micro bi rek terrorisé ko mais dañ laa bëgg fonk la nawloo la ndax dañoo toog ak ibulaay fu wéet nag mu wax lu baax si yow ma ne ko mu seet Timbo de la ma ñëw Pikine bëriwul waaye li ma dégg si moom ci lu baax man Macky Sall moom ba muy joxe euh, ay post ci jeunes yi mu njëkk a jox poste laa moo tax du ma revendiquer dara damay toog sama mag sama xarit Mame ñaa Niang le king de bi nga xam ne nag Ibulaay dinañ la wax lu ne si Mame Mbaye waaye Mame Mbaye Macky Sall ku ko bëgg mu bëgg la amul frontière moom loolu la ñu nàmpatal président Macky Sall Fatick la dëkk di def lu baax ñun ñu dëkk Fatick bokk faak maalaw mii muy teewaay ñun dañuy liggéey ànd ak yow def jox ko joxaat ko li mu loolu lañuy def bu ñu defee loolu dañuy nuyu aboo nuyu ñëpp ñu fi teew di jéggalu ci kàddu yu rëy ndax ñun bu ñu gisee suñu nijaay mu ànd yow dañuy kontaan merci. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bi ñu sant laa julli ci yonent bi alayhi salaam ñu ngi sant Serigne Touba di sant suñuy waajur di ñaanal yàlla suñu xalifatul am sëñ Muntaxa Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di ko ñaanal yàlla maam Modou Mende Fall ak suñu buntu ci Serigne Touba si Abdou Aziz Abou Madiana di ko ñaanal yàlla bépp xalifatulaam yàlla na leen fi yàlla yàggal ba ñu yeggal seeni naari waajur di waxaat alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin ndax Ibou Laye suñu doom la kii nekk ci wetam muy Ablaye Timbo ki jëloon sànq kàddu dafa am benn kàddu bu mu wax nit dafay am kàddu am parole àndandoo ñu ñëpp c'est bien beau ñu mobiliser waaye dafa am lu ñu daloon te gis nga gor ku ko tëral tëral ko Ablaye Timbo mii ñu bëri xamuñu ko ci jëf barki sëriñ aboo man dama waxal kenn yàllaa ngi te gisuma ko waaye lu mu la wax mu doon ci kàddoom bu la nee waaw day tëdd këram jëf la muy jëf ba muy def professeur di jox xale yi ay étudiants plus de dix mille en euh, bourse ñu bëri Sénégal yëguñu ko ñun ñoo ko waroon a pare pour mën ko motiver pour jox ko nit ñi gis na nit yaa ngi def lu baax tëdd ci sa kër di ko def te nit ñi xamuñu ko nit ñu bëri bu ñu defee benn yëkkati dañuy tiitaru di jaay maanaa di wane seen bopp moom jikkoom mooy day tëdd këram di toj Sénégal di toj Ndakaaru gii te kenn xamalu ko. ñu bëgg. lii Ibou Laye tey jox leen tey seeni kàddu mooy mi ngi def tey comité teg leket yi ñu bëggoon yéen ñëpp nañu ànd ci ngor nañu ànd ci bëgg Ibou ndax Ibou tey mu mënoon naa topp njabootam fàtte leen waaye lu mu am mi ngi koy bokk ak ak ñi mu àndal ñoom Mouhamed suñuy doom ñu bëgg ngir yàlla ak sëriñ Serigne Touba fii ñu jëm muy comité yi bu ñu ko monté ku nekk joxe carte d'identité na nga am sa ngor nga téye sa carte d'identité ku la ko laajaat nga bañ bu ñu wotee bu ñu soxlaa seeni carte ngeen may ñu ko lu ñu am jox leen ko opposition bi ah yoruñu kenn de ku ko xam boo amee sa soxla ñi nekk ñoo la koy fajal Ibou Laye tey boo leen wotalee opposition dootu leen mën a fajal kon na ngeen wotal ñi fi ne woteel Macky Sall woteel ñi fi ne Thierno ngi leen di nuyu yal na leen yàlla defal jàmm ñoom dañoo am mission politique mais aussi dañoo am mission sociale et cette mission c'est une mission sociale et on prépare aussi le réseau des femmes pour l'émergence de Pikine monsieur le maire nous avons décidé de poursuivre la voie de l'émergence avec le président Macky Sall nous sommes à relais monsieur le maire lépp li ngeen war a def def nañ ko le président Macky Sall nous a honorés. En si peu de temps, il a métamorphosé complètement ce pays. Il nous a inscrits dans une véritable voie de développement. Monsieur le maire, dañoo kontaan ci président. mu ñëw ñu mu ñëw ñu président. mais lan la ñu mën dem gis le Sénégalais lan la. yàlla le temps de coopérer. c'est que le président a fait dans ce pays. yoo xam ne kenn musu ko def. il est venu accompagner le sens. Personne n'imaginait. Président Kennedy de la terre. Personne n'imaginait la Coupe d'Afrique. Personne n'imaginait être dans le cadre des Coupes Monsieur le maire, nous sommes présents. Nous sommes amoureux du président. Nous sommes victimes de notre condition. doo ñu gis ci ñu koy ŋaañi doo ñu gis parce que fii parti bi ku nekk mën nga ne suuruma de waaye ma non kenn kenn du ko wax. merci monsieur le maire nous sommes très fiers de vous. gis nga pour la première fois dans l'histoire toute la jeunesse de Pikine topp ci ginnaaw benn nit mu Ibrahima Ngom. vous savez pourquoi son style de management mooy lan Ibou lu mu am soxlawu ko lu mu am dala koy jox dalay am di la sédd soo ko bëgg lu mu yor bu may àll ko. c'est le grand coordinateur monsieur parce que en politique le social est le support essentiel de la politique et quand vous faites la politique et vous ne mettez pas en avant les questions sociales et les questions développement non vous ne faites pas la politique vous faites la politique politicienne et Ibou c'est un homme social le social au cœur de ses actions monsieur le maire ñu ngi ko dénkaat di la dénkaat toute la jeunesse léegi nag mel ni ñëpp mel ni ñëpp jug leen tagal ko ndeysaan doolay parti bi laay jumbo jumbo laay jumbo doolay parti bi laay jumbo jumbo laay jumbo Jumbo laay jumbo

balaa maa sori ngeen may ma ma nuyu quelques personnalités yu fi nekk su may nuyu nag dama si jiital sama mag ñu bokk benn bàyyi di sama xarit waaye di sama soxna maa ngi bëgg a wax lu ëpp waaye am naa ci sañ-sañ sëñ Abdoul Aziz Abo sama xarit billaay wallaay yàlla moo def loolu sama diggante ak moom léegi léegi laa daje moom fële ci takku doomu Amadou Diarra moo tax ma yéex a ñëw monsieur le maire Amadou Diarra bu Pikine noonu da doon may doomam bu jigéen fa nekkoon moo tax ma yéex a yegsi waaye ma dese fa sëñ bi mu wone lépp ci kanam mu ña fa toogoon ñëpp jël kàddu baamtuwaat sama diggante ak moom ndaxte loolu bi ñu koy saxal. boobu man mii ci sama bopp ma maire sëñ Abdoul Aziz yàlla moom moo ñu boole kon tey jii bu ma gisee soxna si toog dootuma waxati sama mag soxna si ñu ngi lay ziyaare ñu ngi lay ziyaare madame Mbacké may nuyu ñii nga xam ne ndakaaru lañuy jóge te ñëw tey jii ànd ak Ibulaay Ngom su ma leen di nuyu dama ci yëkkati kenn dong tudd turam mu nuyul ma ñi ci des ñëpp Bigué maa ngi lay nuyu maa ngi lay remercier mais maa ngi lay féliciter ci ni nga jàppee Ibulaay Ngom maa ngi lay féliciter ci sa taxawaay ci wetu président de la république moo ñu boole ñun ñëpp te xam naa la démb barki démb depuis bi ñuy nekk dekkal ngor nga toog ci wetu Macky Sall gëm ko topp ko tey jii ba tey yaa ngi ànd ak Macky Sall nekk ci ginnaaw Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye nag ku ko xam xam ne fu ñu tuddee Macky sàll bu yaakaaree ne am na bouclier bu ciy jóg kenn du ci jiitu ma may ñaaw c'est le premier bouclier du président de la république et il l'assume kon boo àndee moom yaa ngi ci biir Macky Sall jógoo ca yaa nga ca sax tey jii li nga ñu defal c'est un honneur et on te remercie d'être présent ici à côté de monsieur Ibrahima Ngom engagement bi nga fi jël aussi dégg naa ko accompagné dans le financement les femmes de Ibrahima Ngom les groupements de femmes yi nga xam ne war nañ ko taxawal ay groupement de bus balaa maa sori di ko fàtte Ibulaay Biége dafa wax ne na nga organiser famille def ay groupement de dix à travers le département de Pikine ma bëgg a wax ne organisation boobu en groupement dañooy wax ci télé kenn du wax yenn yi ci kaw télé mais maag yow ñoo ciy ànd ma accompagner la nga accompagner leen lu soobee dans la formalisation formaliser jigéen ñooñu que bu la diggee waxee na nga organiser famille ça veut dire que jigéen ñi pour ñu mu leen a accompagner jox leen ay financement dafa laaj ñu formaliser leen formalisation boobu dafa am lu muy coûter pour pouvoir formaliser rechercher des papiers ñoom ñëpp ñu organiser leen defaral leen ay structures yoo xam ne c'est des groupements de femmes ça demande un accompagnement et dans cet accompagnement là incha allahu rabbi lépp loo xamante ne war na ci maag yow dañ ci waxtaan lépp lu ma ci war a def dinaa ko def xam naa ci yow nag benn jikko Ibrahima Ngom ku gore la Ibrahima Ngom dafa yor jikko boo xam ne c'est un peu bizarre pour qu'un jeune comme lui puisse avoir un tel comportement man maa ngi doog a comprendre pourquoi Ibrahima Ngom a ce leadership là Abuja wax na ko léegi Ibrahima Ngom c'est un leader nain xam nga lu tax et un fait marquant mooy Ibrahima li muy def te muy jikkoom mooy ku mu àndal loo am mun la téye ko moom Ibrahima lu mu am ne la kaay ñu bokk ko mais il faut avoir un grand cœur pour pouvoir se comporter comme ça il faut avoir un très grand cœur pour pouvoir agir comme ça et c'est ça Ibrahima Ngom moo tax taxawaay bi nga taxaw ci département de Pikine bul yaakaar ne son excellence monsieur le président de la république xamu ko ñëpp xam nañu sa taxawaay ñëpp xam nañu sa engagement ak sa détermination à côté du président de la république bés bu yàlla sàkk nga wone ko ba tey ji encore lii nga fi def man bi may ñëw maa ngi fekk ci biti fees dell ma ne mais man def naa lu ëpp de parce que nit ñi génn nañu salle ba naru ma faa fekk kenn tey bu lay newoon na mën a teel a ñëw dafay wane ne am nga taxawaay bu mot dans le département ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla saxal loolu. qui est en train de faire de la politique. Ibou Laye dañoo bëgg. am loo xamante ne li moom laa bëgg a yeggalee léegi ba ay jël kàddu dañ ne dañuy jox Ibou Laye après jox moom ma tëj ma ne leen non non da ngeen may bàyyi ma jël kàddu am lu ma wax su ma paree Ibou mi nga xamante ne bi ñu fi teew ñëpp ginnaaw yàlla ak yonent bi moom moo tax ñu jóg bu leen waxee dinañu gën a mën a dégg kàddu googu mu gën leen cee ñaax parce que c'est important dañoo toll ci vente des cartes ak installation de comité dañoo toll ci vente des cartes ak installation de comité dañoo toll ci vente des cartes ak installation de comité ma bamtuwaat ko trois fois xam ngeen fu ñu toll suñu parti dafa am lu ñuy dëgmal on est en 2023 parce qu'on est au mois de décembre 2022 li ñu dese ci ñu dem ci élection 2024 benn semestre la juróom-benn weer la parce que yeneen juróom-benn weer yépp ci ay préparation de cette élection laa ci la ñuy nekk kon il nous reste six mois pour nous préparer pour les élections nit nag booy dem ci élection da ngay wut sa ngànnaay te ngànnaay bi ñu am ngànnaay bu politicien bu nekk di yaakaar mooy sa mbooloo mi nga am ñi nga xam ne ñoo la gëm ñoo la topp il faut nga xam lan nga am ci ngànnaay balaa ngaa dem ci ay élections actuellement on est en de voir et de nous compter de savoir quels sont ceux qui sont prêts à accompagner la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que nguur gii des suñu loxo nekk ci suñu loxo mu desaat ci suñuy loxo li ngeen di yaakaar ci Ibulaay Ngom mu am ci taxawaay bu mat ak keneen ak keneen biigee ak ñeneen Marème Mbodj wax na ko léegi nit balaa mu laa ne naam dafay fekk mu nefa Dans six mois, on doit être prêt pour continuer à être ici accompagner le président de la République ci yéeneem gi mu am ci Sénégal mu mën ko yeggali parce que liggéey bi muy liggéey kenn masu ko fee liggéey. Il n'y a aucun président depuis Léopold Sédar Senghor ba ci Macky Sall fi Macky Sall def benn président de la République moo su ko fee def. kon ñun bu ñu waree dem ci élection am confiance ci sénégalais xam ne. bu jotee ñoom la ñu war a tànn xam nañ ko bu baax a baax li ñu war a def aussi bu soobee yàlla dinañ ko def mais dafa baax ñun ñi ànd ak moom ñun ñi nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar ñu natt suñu bopp xool nan lañu ak naka la ñu toogee ak ban taxawaay la am loolu nag dafay jaar ci parti bu nekk ci biir coalition bi nga jéem a xool yow parti boobu comme APR Yaakaar AFP Parti Socialiste PIT LD tous parti kii qui dans la coalition Benno Bokk Yaakaar doivent s'organiser pour que si seen biir parti ñu natt seen bopp APR nag commencé nañu natt suñu bopp si suñu njaayu carte ak installation de comité Ibou Laye tey occasion la tey jii li ñu fi war a gën a waxee gor ko gën a mën a ñaax ci nit ñi mooy ku fi nekk ci yéen nii man dama jàpp ne responsable nga sa biir commune ku fi nekk ci yéen jàpp naa ne yow responsable nga ca commune ba nga jógee kon c'est normal que en tant que responsable nga matale sa comité juróom fukki nit la ñu laaj pour am benn comité responsable bu nekk ci yéen mën na ko kon tey war nañoo mën a teg benn organisation dans cap la banlieue pour que ñu jéem a xool nan la ñuy def ci responsable yi ku nekk ñu jox la fi visite comité jox la li nga xamante ne mooy say carte pour que nga installer les comités au nom de l'APR loolu nag. c'est extrêmement important bu ñu topp mbumbaay mi topp neexaay bi topp ce que na attend par rapport à ça ba fàtte ne la nga xam ne moom la ñuy dëgmal arme yi mu laaj moo ñu natt suñu bopp xam fan la ñu jëm c'est important Ibou Laye je voulais le préciser pour que responsable yi fi toog yëpp parce que salle bi yëpp ay responsable fi nekk ku nekk boo ñibbi nga yóbbaale loo xam ne war ngaa préparer wu pour monter un comité may jeexal ci wax ne damay féliciter ñu ànd ak Ibulaay Ngom yëpp parce que bu ma tuddee Ibulaay Ngom am na ñoo xamante ne mënu ma leen bañ a tudd parce que c'est des grands responsables et ils sont loyaux Lamine Thiaw je félicite ci sa taxawaay Abdoulaye Yaqin rouge la woon léegi blanc la je félicite Abdoulaye gis naa sa engagement ci président de la république te xam naa ko Abou Dia je te félicite Abou Daf MC Daf Jules Daf je te félicite je t'encourage Doudou Laye waaw kooku ñoo bokk benn commune sama rakk la sama jarbaat la mu ngi ci ginnaaw Ablaye am am taxawaay bu am solo dëgër ña xam ne ñooy jigéen ñi damay jël loolu lépp tënku ko teg ko ci loxo fayul daf mu félicité ma jigéen ñi nekk ci cap sur la banlieue yëpp yéen ñi fi toog ñëpp nekk ci cap sur ban banlieue je vous félicite et je vous encourage xam nga la moo am solo gore nit da ngay gore bu nit toogee ci jamono am loo xam ne da la ko mënal nga am ci yaakaar ba gëm loolu ci moom ànd ak moom saa su nekk lu mënti amati fa nga nekkoon na fa nekkat looloo yi fu gor te yéen ku leen gis tey jii ni ngeen fi mobilisé xam ne ay gor ngeen yéen ak Ibulaay démb yéen ak Ibulaay tey yéen ak Ibulaay ëllëg bu soobee yàlla. je félicite toutes les femmes de la COP de de COP la banlieue di remercier donc toute l' équipe de Ibulaay yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ak moom su ma nee toute l' nag kana ca bopp ba moom jaratul wax Ibulaay Ngom yal na la yàlla fay yal na la yàlla taxawu. nit ku goree ngi nii nit ku mën a jàpp ngi nii séeréer pire a ngi nii bii ngay wax na léegi ne ñun ay séeréer la ñu Ibrahima boobu séeréer pire la parce que y a des valeurs am ñoo xam ne dañ ko judduwaale am ko moom ko Ibrahima si la bokk ma Iboulaye je te félicite encore li nga def tey yombul maa ngi toog léegi ak Alioune Badara Diouf mu may déy naan ma mais monsieur le maire Iboulaye Ngom il mérite quelque chose Ibrahim Ngom c'est un jeune engagé Ibrahim Ngom c'est un jeune déterminé il n'est pas de notre parti il est de l'AFP mais xam na ne li ngay def nii moom la ñuy xaar ci responsable politique ak ku am gëm-gëm ku am pas-pas ak ku dogu ci accompagnement président de la République on te félicite encore ñu li nga xam ne moom la ñuy dëgmal ñun ñëpp commencé ko par lii nga xam ne moom mooy la mise en place des comités ngeen taxaw ci taxawaay bu am solo ngeen taxaw ci comme na ngeen taxawee woon ci parrainage yi Ibulaay ñu ngi lay ñaaxaat ci loolu ñu amaat même taxawaay bi monté waat beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de comités je voulais te féliciter remercier la ci li nga def tey jii remercier toute l' équipe qui est autour de toi te gëm ne xam naa ne Cap sur la Benne yow fa mu jaaroon ca parrainage ba nu foofu lay jaaraat encore ci montage de comité yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi di gërëm di leen sant yàlla defal jàmm ñu yegg leen jàmm merci beaucoup. merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur le maire. merci. jërëjëf. merci Mbaye. merci. ndax ak jomam. ak fulaam ak faydaam moo ko may lii bu ñuy xam wurus xam naa ku jël ngalam dootel ma laay lay la bu may bu béeku yow la yàndal waaw bi rek alaaji daaw dangum sa baay ba nga doon yaa doon say maam sëriñ bi ci am daal nee ma naam président Kabsir Bali ana jigéenu Kabsir Bali lu leen looy tudd ko ne ndey bàyyi la waaye fulaak fay jamonoom ko moom coono ci ba nu jëndee daani am baat laay Ibrahima aja ma dem boo jëriñoo sa alaaji kabiru mbooj la ñu woowee baayam ki yow day lool si nga bi aboon borom mi di ana Mbàkke bakk naa mi ngi nawee doomi garmi yaa ngi ci biir Ablaye Timbo Ibulaay man dama laa man dama laa man dama laa man bëgg laay lay la laa su may buggee si كريم خلون من رب من يقف الدكتور واليوم والأيام كنا سنابي أي نجا يوم كيسال لنجاري لنتورو مكم ريم يسي yima mu ji baabu mu ji ngilee mu tama si ay baax yi bay baax Ablaye Kimbo doom ju ma namoon sama baay bi sama baay bi sama baay bi sama baay bi ana waa jinne caaroy kaw ana waa jinne caaroy kaw ana waa jinne wraay ey baay bi ma ne bëgg naa nu mën a mel Ibrahima Xalilulaay xaritu yàlla mbaa ngi nii mbokk mbay mbay karim seen ma jëndee yëmu góor batala si dëgg ma ñaay dawa ma ñaay ma ci tuube ak yàlla bi la noon yaay bii génnee xuleenam kon bii génnee xuleenam ajana nee xuleenam Ibulaay ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ñu ngi ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg. salaamaaleykum mbooloo mi xam nga nag man dama bëgg su may wax ñëpp déglu. ndax ki toog tey fu mu toog ku fa toog war ne patt déglu kàddu ya fay jib muy le grand maire le king de la région de Dakar le maire des maires Abdoulaye Timbo xasuñu kenn xeebuñu kenn ku fi maire maire nga waaye ku fi maire maire bu pëti nga c'est le grand maire may sant yàlla di julli ci yenent bi di sant samay ñaari wuyjur di sant jigéen ñi fi toog ñëpp amul xàjji amul seen di ci jiital jigéenu Cap sur la yi ndax nag man nu ma mel góor ñi may àndal ay jàmbaar lañ waaye yéen jigéen ñi kenn demul ngeen des moo tax su ma amee benn jox leen caaxaanu leen doxu leen ci lu ñaaw waxu leen lu ñàkk fayda seeni borom kër ngeen di bàyyi bu guddee ngeen ñibbi toppatoo seeni njaboot ki nu boole nag moo am fulla ba tax ku ko topp am fulla daray ñàkk fayda du la topp muy son excellence le président Macky Sall ngeen di ay jàmbaar des fois ñu defee ne lépp Iboulaye la fekk yéen a cotiser seen dërëm dërëm ndax tey bi ma xoolee ramatulaay Sakho video ay añ yónnee ma ko ne mi ngi koy togg ci këram te man fekkee ma loolu yéguma ko sama xol dafa tooy nit ki teg mbanne ci këram dajale mbooloo bi te dara warulu ko lu dul bis bi nga def kooku mën a toog koo fay dix heures ci suba Pape Yaay ñëw fii mais Jules Daf ak personnalité am Jules jàngalekat la xam-xam rek la bari bàyyi lépp ñëw jàppale Pam fii moom la grand coordinateur Abuja fii ci bis bii kon yéen nun nekkatul ay politique booletunu danoo bokk ndey ak bàyyi man bu ma lekkee bàyyi leen wala man naan bàyyi leen du ma gor may ñuy bu baax ajaratu fayal daaf fayal su ma ñëwee këram day yaakaar ne buur moo fi ñëw man su ma demee këram damay nekk jaamu tukkulóor waaye da koy bañ ku baax la may nuyu président de grandes dames ajaratu Sala Thiam Sala Thiam boo ko déggee ci groupe mu xuloo rek dañoo laal ibulaay te defe naa ne Sala moom ku ko xamul dégg nga ko moo tax Babel yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa yaay jug ak jàmm ci barke Seydina Mohamed Ibrahima Sarak noonu rek la mën a mel may nuyu présidente nuyu naa la madame la trésorier Ajaratu Jorka maa ngi lay nuyu Jorka Jorka bi nga jàppee ba tey tey nag nañ ma may mu xuus jidda bi nga jàppee ba tey bàyyiwoo ci loo mën a nekkit su ma la woo nga génn ci foo mën a duggit sama kàddu gii moo la fa bàyyi sama jëmm ji rek la Jor. danoo ànd ci ànd gor te xam nga lu tax ànd bi day gën a neex waa ji dafa woy ñaaw na ba pare man ma neex na ba pare ndax dafa tane woon tuuti ñu am monsieur le maire Abdoulaye Timbo te day gën a neex ma lay nuyu bu baax di nuyu Souadou Souadou JAD amal nañ la njukkal sa coordinateur nee na jàmbaar la may nuyu ajaratu Kadja la responsable jeunesse féminine di ko beral loxo di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax lay gay di sama xarit di sama genn wàll di nuyu ay Aysata sama jërbaat sama rek sama xarit ay Aysata dana jënd parfum jox ma dana jël tisi jox ma dana xool lépp mu jox ma waaye di nuyu balaa muy nuyu coordonnateur Abuja mooy nuyu la coordonnatrice la grande dame di nuyu suma jigéen sama xarit sama genn wàll ajaratu aji aw mbay ndax nag damay wax ne dañoo fekkee démb fekke tey ànd bi metti woon démb tane tey dama wax ne aji awa mbay ak ummi si sama njaboot lañ yéen yàlla ma boole yéen ñun waruñoo meroo waruñoo réeroo waruñoo xiiroo te ñoom ñëpp samay doom lañ ummi boo ma laalee rek xol bi yëngu lu mu am def ko ci def ko ci man toog lu mu bëgg bàyyi na la ci des tey commune am ayewul mais foo mu wax ci moom nit ki li mu la woon rek nga ko mën a woon ummi si kaay nii nit ki li mu la mën a woon rek nga ko mën a woon boo gisee ma wax loolu mooy ñoom aji awa ñoom ummi ñoom asutal ñoom ami gay ñoom nday sekk xadi tàmba madame la coordinatrice de yëmbal nday awa Geddaado Mariama Asubta la grande responsable sama digganteeg yéen ñoomi Danso Ami samay doom lañ ñoo ma mag mais man maay seen papa ñun suñu diggante dafa yàgg du tey kon lii ngeen mobiliser tey indi ko fi indi ay responsable monsieur le maire li mu bëgg ci comité yi day yombu su ma ko nee mën naa chaque semaine ma indil ko 10 000 cartes ku fi ne war nga koo mën a gëm ndax 7210 parrainage lañ ko indil kon ma bëgg ngeen gën a bennoo ngeen gën a bokk Mariama Mariama li nga ma indil ci parrainage kenn xamul nu mu toll te ku nekk mën na ko seere ndax lu may def su contrôle de Adji Awa mbay la ak Fayel Daaf yàlla na la yàlla jàppale ajaratu ren la yow seetaanoo ñu benn yoon. ren laa lu ñu ñor ñor na la lu ñu neex neex na la ndax yow deretu président Macky Sall nga kon moo tax nga bëgg président Macky Sall ba lu nekk nga nekk ci aji aw mbay kaay nii gis ngeen yéen ñii samay njaboot ngeen monsieur le maire mais témoin kii du tooñ kenn du waxal kenn lu ñaaw du jëfal kenn lu ñaaw ku mu jotal yaa ko tooñ maire Macky ma lay nuyu bu baax a baax a baax di la beral loxo Anta Gueye sama jarbaat yaa ma gënal sa yaay joxante leen loxo ci mbooloo mi mu rafet ay doomu nday ngeen kontaan naa ay doomu nday ngeen seytaane bari doole umi wuyul umi wuyul aja o yi may leen leen loxo may leen loxo jël leen photo jëlal jege leen merci beaucoup merci Jibi Diop ma koy nuyu bu baax di ko beral loxo di ko siyaare léegi nag ajaratu xawaasi maa ngi koy nuyu ak Kumba Diop Mayram Diallo maa ngi koy nuyu Anta Sall di ko beral loxo ndax sama doomu papa la doomu Ablaye Timbo la Pape Faye di la nuyu di nuyu la grand coordinateur des coordinateurs Abou Tall di la siyaare juma aan di la bëggee maa ngi ñëw maa ngi ñëw mais Abuja mii man ak moom kenn lañ kenn tikkoo maa lay nuyu Abuja man damay fanaan néegam man dama am soxna mais damay fanaan néegam sama soxna ki ko représenté ngi nii toog muy rakkam bu mbokkal ndey ak ndax daf ko ne toppal ma sa waay di ma ko xoolal mais kii damay fanaan néegam di fa tëdd di fa añee Abuja ay waa këram ñoo ko gën ay magam yu jigéen ñoo ko gën seen bàyyi wàññeeku na mais liñ ñàkk ak liñ am kenn xamu ko man tukulóor man man daal séeréer laa te bañuma ko mais nekk tukulóor dafa neex ndax nag ndax nag ndax nag ndax nag bu lépp jeexee sunu kaw tukulóor la Abuja jikko bi mu yor ñoomi Abuja dana jël salaire dox ko ci samay service ba mu jeex te du ma ne ñaata la wala lii la mais xam nga lu tax cap jàmm la tey ñu xewlee nga gis Bangoura le grand coordinateur taxaw nga gis Abdoulaye Yakin taxaw kon daanaka dara xewatul Pikine jàmm fi xew nga gis jigéen ñee nekkoon ci groupe be ne lii la ñii nekkoon fee ne lii la ñoom ñëpp a ngi nii daje di waxtaan sànq ba tey kon jàmm moo fi am. te jàmm la sama baay bëgg ci pikin te jàmm la ma sant ma di ko dox nee na ma ku la toj baal ko lu la waaye gën a bëgg bàyyi ko ak yow te loo am bokk ak ñi la yàlla booleel. muy nuyu bu baax sama yaay ajaratu Marème Mbodj Marème dama ñëw kër monsieur le maire ñu waxtaan ma ne ko Marème moo may woo mu ne ma bis bi noo ko bëggee ma ne ko yaay xanaa nga ñëw mu ne ma dinaa ñëw te dinaa la indil ay kaar loolu diggante ndey ak doom la dafa may woo ba ma ñëw mun ne ma dama laa toggal pay laa indil bool bu mag. su ma ñëwee ne ko indi ma benn bool mu rokkos yëpp ci suuf ñun dañoo bëgg ceeb bu neex ñuy làmb rek di daj mais kenn mooy borom këram sëñ Aziz mu sëñ Abo mu sëñ Baara Mbàkke mu Cheikhul Khadim kon kii jàmm la yam ma ne ajaratu Marème Mbodj moom bu ñu ñaanalee rek ñu am jàmm ndax dëreetu Sëriñ Tuubaa la ndax Mbàkke Mbàkke koy denc muy dereetu Serigne Bara Mbacké muy nuyu maire Khady Sagnane ajaratu biigee kii Macky Sall moo ñu boole ak deret kii ñoo bokk maam ñoo bokk tukaar ñoo bokk joowin ñoo bokk ñañaan ñoo bokk maamu diis ñoo bokk lungin buñ ñu dàqee ñu ñibbi ñooy bokk test Fatick keroog bi mu xewlee dama ko ne damay ñëw mu ne ma sa taxi bi nga jël fu mu gaare ma jël oto bu mag yab see nit ba mu fees ndax teraanga àdduna bët la te dereete gën alal man damaa dee ci Macky Sall est ce que xam ngeen mosuma toog ak Mame Mbaye Niang mosuma gis Mame Mbaye Niang mosuñu jàkkaarloo man ak moom mais bu ma gisee soi-disant violeur di ko attaqué dama cee dugg ba mu saf ndax ku mënta gérer sa kër bay topp jigéen waroo mën a attaqué ministre Mame Mbaye ko lépp lu ci war ba ku ci nekk gis ci sa bopp yàggul dara ngeen séddale dans la région de Dakar quatre cent millions man damay suivre ci dëkk bi laa dëkk kon boo ko waxee ne di nga ko fi indi di ko fi indi ajjana musuma gis Mame Mbaye Niang te gisuma bii gi ak ci wetam keroog bi muy dem assemblée dama laa séen ca kaw nga toog ca wetam dernier réglage bi mu koy def yow yow ak soxnaam ngeen bekku ndey ak baay mu jël politique bi lu ci bëri dénk la ko jël financement dénk bii biige di sa rak nga rakkoo ko lu mu def nga ne ko bàyyil ma fay kii namul dara ARTP la nekk te déretu séeréer lay daw ci yaram lu mu am jox ko ko yàlla boole. maa ngi lay nuyu di la siyaar di la beral loxo ñun nag Pikine namuñu dara ndax bu waaye bu nit di wër directeur général ñii di wër ministre ñii di wër dam Dakar di kii ñun ñu ngi toog ci taatu buntu këru la grand-mère Abdoulaye Timbo. mooy seul leader mooy sël leader booy ñëw këram heure lekk jot mu jël kudd jox la jàkkaarloog yow ne la ñu añ wala ñu reer dama ne monsieur le maire bu ko neexoon du dëkk fi mu dëkk waaye deretu Pikine ko ba fii ndax Pikine lay noyee koo xam ne syndicat nga jaar tëlib mag nga jaar ridis nga jaar kon kenn gënu laa xam Pikine te kenn mënu la fee nax yow bu la neexee bul wootee yaa njaboote ñëpp Pikine ku woote bàyyi ko yow soo bëggee woote say liet naa ngi nii ñun loolu sant yow tollatoo parti bi fi mu ne tollatoo ci foo xam ne dañ naan timboo woote tey fii déedéet yow de jox ay ordre rek ñuy exécuter yow tollatoo foofu amatoo jot boobu ndax nag élection mësta ñëw nga nekk ci bopp ba ñu daanu waxtaan wax dëgg ca la bëgg buur buur bëgg laa ko gën askan wi la bëgg moo la def ci xolu nit ñi sunu borom élection locale <laughs> gars yi mën a wax naan sondage yi nee nañ Timbo day daanu mu noppi rek ak a mën a muñ waaw moom ak at yi mu am ak ni mu toll dina xëy ak ñun sept heures du matin balaa muy tëdd trois heures di matin te balaa ba balaa gars yi jug fekk moom jug na ba woo ma ne ma fu ngeen toll kook nga def moom xolom ak njëriñam nekkatul ci lii sax mais dëri ñun rek ñoo ko ci bàyyi ba pare mu jël ay doomam dénk ma ko ñoom naa Diallo ñoom Collé ñoom Ami Sall ñoom Tooj ñoom Asta ñoom Ndey monsieur le maire Abdoulaye Timbo am nga njaboot gu doylu am nga njaboot gu la bëgg Ami Diop nee na ma ñun lu ñu waaye gën a bëgg lu dul timboo ñu bàyyi ko ak yow mais Timbo duñ ko bàyyi kenn monsieur le maire nee na mi ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nag kilifa am ko mooy am mooy li am solo sañ Moussa Ka ko wax te moo ma boole ak yéen du mus a ñaaw ci sama wet te du mus a ñaaw ci seen wet te moom ñaawalu ko ki ñu yàlla booleel bu la yàlla booleeg moom doo soxla dara yi keneen bis bi bis bii bu doon ñetti nit ma toog xaar ko fi man xanaa bu ma jàppul de des fois ñu naa ma tànnuñu la ci nangam ana Timbo may leen Timbo du rakku yàlla te maa sow teg yeneen bi bëgg-bëggam la am yàlla di dogal makk di def. waaye yow man bu parti bi jeexee te namam ñu ma ci dara te ma am timboo lu ma namm xam ngeen kuy timboo xam nga Pikine xamuñu kuy timboo wala boog ñenn ñi xamuñu kuy timboo xam ngeen kuy timboo mooy cadre bi nga xam ne yàlla doo ko may mu jàng ba téye xam-xamam ba noppi nekkoon post di fa daan dooleem ba yàlla may ko lim may Macky Sall soxla mu teg la leen lépp jàmbu lépp ñëw ndax président Macky Sall defe ngeen ne kenn dina fi cilli cilli wala ngay jinne jinne lu ba Macky Sall wax ak keneen tëb kii ñun namuñu dara yi keneen ca biti responsable yi nekk ci biti maam Baye de sama xarit la ndax samay xaritu xarit la te ku baax la mais ñeneen ñi dugal seen loxo Pikine nag di wëraalu man Ibou Laye day soxlaw ma leen ci Pikine te xaaruma seeni jàppale ci pikin te bëgguma seen dara ci Pikine ndax lu ñu waaye di jox rek Ablaye timboo jox na nañu ko ba nu rek taxawal na président Macky taxawaay bu am solo parrainage yi boo ñëwee li mu lay wax mooy xam leen ne président Macky Sall moo soxla man damay seetlu monsieur le maire bu dee soxlaam la bu dee moom dafa am lu mu soxla da ciy yéexam toll mais bu dee président Macky Sall soxla bu ko fekkee mu sol ay carax moom lay génne loolu ci moom rek laa ko mës a gis di nuyu sama papa Alim Badara Ndiouk papa Ndiouk yaay seere bi chaque di jours dinañ indi dix mille cartes chaque fukki fan. dinañ indi dix mille cartes jox ko le grand coordinateur Ablaye Timbo dafa ko woo mu ne ma diw nee na nga indi ko parrainage yi temps la ciy joxe man ne ko nit bu jaayee deretam jaay ngorom dara desetu fa bu parrainage jeexee Ablaye la ñuy jàkkaarloo nga jox ko mooy coordinateur nga yóbbu ko mooy coordinateur nga bàyyi ko fi mooy coordinateur kon jox ko ko te des ci li ko yàlla jox mu des ci ak moo gën yaa fi ne te nuyu samay doomu bàyyi ndax ku ne doomu bàyyi neexul da nga gisul ñi nga bokkal wacc kaay xaadim kaay ana lay ngom ñii samay doom bay lañ yàlla boole ma ñoom ñu bokk liñ bokk yàlla boole ma ñoom ñu bokk liñ bokk Ablaye Ngom may leen ko loxo bu baax a baax ñii xooluñu li ma am xooluñu li ma mën barki Seydina Mohamed su ma soxlaa samay mag lañ Ablaye mii sama grand la mais su ma soxlaa mu ne ma bàyyil ma dem suñ toogee mun ne ma may teg attaay su ma bëggee dara mu na ma may taal oto bi demal la kon Ablaye doom baay rek a neex wëcc kontaan naa Ousseynou xaadim kontaan naa li nu bokk nu koo séddoo ngomeen gi nu bokk ku ne da ciy jël wàllam rek te sa baay da koo liggéey laataa muy dem sa baay dafa dajale sa waay dafa dimbale sa baay dafa terle kon bu demee banu fi ñun dañ ko war a rafetal te yéen ci yàlla na jàmm yàgg di tëjee ci Mor Sow Maabo Mor Sow Maabo may tëjee ci Mor Sow luy lekk su gor bu ko seenee ngang xadi Tamba kii gor la xadi kan kii gor la Mor Sow sama digganteeg moom dama leen di wax anecdote bu gàtt rek <clears throat> dañoo dem keroog programme bu bii gi ba ñu demee programme bi jeex xam nga des fois tey day neex suba mun a xari yoruma lu ma jënd lekk te ruus naa ko wax ñi ma àndal ndax dañoo bari woon te bëgg naa ñu lekk balaa ñoo dem mais bi ma toogee ñoom ñëpp ñu ne ma looy xaar ma ne ko foog ngeen réer xam nga lu kaa dafa bëgg lekk mën na ma dina ci baax de <laughs> mu ne ma grand fi mu ne ay am ingrédient <laughs> mais Modou Sow di ma xool di ma xool ba mu yàgg mën na ma yow xanaa bëggoo dara boobu yorul ma ne ko bëgg naa caaf de ma oyofal ko ne ko caaf gars yi naan ñun sandis mot saw génn woo soxnaam ne ko wéef ma soxna si wéef ko mu jël taxi dem ba ñaari tali jënd ay reer jënd ay potu caaf yu mag yi jënd ay boisson jënd ay ndox indi ko waa géwél fu muy teralee géer ba pare fu mu dem moom maalaw maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax maalaw doomu ndeyam ndax foo gis kii gis fa kële le grand simu baas ngóor tey jidde moo ay fin foog ma gërëm la bi ngóor bi ngóor dañoo ànd ànd bu rafet su ma la nuyoo ci équipe bi nuy naa ñëpp ndax simu yaay sunu mag yaay sunu kilifa barki démboo Njaay damaa nekk di réunion femme bi ne la foog nga dem kër maire danga ma ne su ma wàccee falaay jubal te simu boo doon béy tawloo ma kenn xamul li nga bëgg kenn xamul li nga bañ su suñuy bëgg-bëgg rek mooy sa bëgg-bëgg kon yàlla na la yàlla jàppale yàlla sagal la yàlla teral la fi may tëjee nag mooy monsieur le xam naa ne yaa ngi ciy xalaat bu baax mais suñu jigéen ñi foog ñu gën leen jàppale suñu jigéen ñi monsieur le ay jàmbaar lañ ñu bëgg président la ñu jàmbaare la xam naa ne jàmbaar nga ndax doy nga ma léegi na ma lekket bi def naa ci cinq cent mille mu ne ma Ibou Laye ma ne ko naam la ko jox nga yóbbu leen ko est xam ngeen ne ci àdduna ba may Ibou ba tey barki Seydina Mohamed mosuma gis ku dàq joxe kii toog dama ko weranteeg benn nit ma ne ko nit ki boo ko xamul xamoo ko te man munoo munoo ne Ibou Laye neexuma safuma bëgg lu ma am jox la bu ma la safee neex la ngay wéy ci samay waaw bu muy dëgg ci yow ma xam ko kii dafa naqaree xam monsieur le maire neexul xam damay dajale uniquement sama équipe journée lëmm ñu toggee añ ma leen di wax kan mooy Timbo ndax nit bu ngeen bëggee yàgg foog nga xam ko. maa ngi ñëw dina ñëw. leen ci seen leket départemental. àjjana nee na def na ci deux cent mille bii nga na def na ci cent mille bii nga sànq la ko message na ma man def naa ci cent mille àjjana def na ci deux cent mille man ak àjjana joxe nen trois cent mille ci leket gi ah ajaratu ajaratu Mare Mbodj nee na moom def na ci cent mille muy neuf cent mille monsieur le maire au conseil loo ci def mu ne def na ci muy un million un million bi ñu am ayul gaaf ñi nga xam ne dañoo soxla réew mi soxla nguur gi di violer ay xale yu jigéen di dóor ay jigéen kenn du leen jox réew mi kenn du leen jox nguur gi jigéen kenn du ko dóor jigéen kenn du ko dóor kenn du ko dóor